asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 28 août 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu làmb la ñuy xëy tey dooreeti ko mu mel ni ki nag yëglikaay bi bu bëggee dégg dëgg daal tey moom dem ak Alioune la xëy ñëw dikkal ñu ci ak mbir yoo xam ne mu ngay xeeñ ginnaaw bu fi jógee ci wàllum ñoo xam ne daal am na la seen war a mën a dénk ñu yore làmb ji mu mel ni ki tey seen xëy fësal Yékini Tapha Gueye ak Boy Kayre bu dee li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllum làmb ji dóor ji ki nga xam ne moom mooy Mohamed Ndaw Tyson mooy nekk premier vice président ba wàllum lit simple ba Yékini deuxième vice président ba daa ni moom lañ ko fas yéene dénk loolu yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko booy rek Tafa Gueye wàllu lambim olympique ja daal ñoom itam boo sàggane ci seeni loxo la jëm sunu lamb xëy tey ñëw andil ñu boobu gëstu ci yëglikaay bi ci xëtam mu njëkk ba tey bu ñu continuer ci mbiri Aline Sarr mel ni ki nag saison 2019 jàpp rapport ba kii di Aline Sarr ak équipe am jébbal nañ ko ki nga xam ne mooy ministre des sports ba di ki nga xam ne moo di Matar Ba yëglikaay ba xëy ñëw tey wax ñu lu mel xam ne def nañ ko kii di Doudou jiite ñi nga xam ne ñoom ñooy amateurs yi lamb yi daal moom la mu xëy di wax daal nee na ki nga xam ne ni daal moo di Alioune Sarr du ab ministre la war a rendre compte ñi mu war a rendre compte mooy askanu réew mi loolu daal mooy li mu war a def loolu la ko Doudou Diagne Diecko xëy tey di wax ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb yemu ca de moom Doudou Diagne Diecko ñëw na tamit ci li nga xam ne moo di ki war a jiite CNG ginnaaw bu Alioune Sarr jógee fi nee daal kenn ki war a doon mooy koo xam ne ku ko soxla war nga koo mën a jot maanaam koo xam ne ku lay doon ku neex a gis neex a a waxal na tamit wàllum roi des arènes tamit kii réewam war na koo jéem a régulariser maanaam daal ñu teg ko ci aw yoon organiser ko ba mu tegee ci aw yoon wàllum li nga xam ne nii moom tamit moom moo di lu jëm ci wàllum lutte bi tamit ñëw na ca itam war ko gën a taxawu teg ko ci aw yoon li nga xam ne nii daal moom mooy tamit wàllum ministre sport yi fi jaar ne na ñoom ñëpp ku ci ne mosoo laaj ki nga xam ne nii moom mooy Alioune Sarr ngir mu rendre le compte wala mos laa rendre compte du jànjëg ko moo xëy tey di wax loolu ñu ne ko ndax yow da ngaa bëgg a jiite mu ne man xalaatuma ko tey suba waxi noppi pour jiite CNG du jànjëg ko ne na xalaatu ko moom daal ci ay bëgg-bëggam waaye wax na la nga xam ne daal moom la xalaat ci sunu làmb keneen koo xam ne nii moom am na lu yëglikaay bi xëy tey andil ñu ko ci moom muy guy gi bi nga xam ne woo moo war a bëre ak rëg yëglikaay bi daal ne digganteem ak rëg-rëg guy gi soxla na lu jëm ci wàllum mystique ngir belende boppam bu baax a baax ak force boo xam ne bu wóor a wóor la boo xam ne dina mën a taxaw jàkkaarloo ki nga xam ne moo di rëg-rëg ak xeex bu wóor a wóor ngir nag mën a génn ci boobu combat yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu ñeneen ñoo xam ne ni moom combat ba ñu jël coow laa nga ca muy diggante Gris Bordeaux ak ka nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 mel ni kii nag jël gañ na Gris da koo jël combat ba te Tapha Gueye yëgul géntul ki nga xam ne nag moom moo di Pape Demba ba jiite président supporter yu écurie Fass moom ne daal wax na ne daal li am loo xam ne Tapha Gueye bokku ca loolu yëg li kaay baa wax ñu ko Pape Demba ba moo ko fa wax leneen loo xam ne nii moom am na muy ay résultat ci écurie bi nga xam ne nii moom moo di Kër Massar mbooloo Kër Massar mbooloo nag moom douze victoire daal la ñu am ak quinze défaites moo tax yëg li kaay bi ñii day boo sàgganee ñu ngay lab ca géej ga ndax nag seen résultat yi moom doy nag waar lool kii di dorog ba nekk ci écrit ba moom gis ko ak ay bët ngir mu bëre fi mu nekk ni moo jafe maanaam moom mu nga toog ca bande tous ba gaskeel jàmme itam mu mel ni koo xam ne daal est que nu mbër yi dañ koo xaw a ragal ki nga xam ne moo di kàngam moom ak ki nga xam ne mooy booy mankaañ moom ñoom itam saison blanche la ñu def ki nga xam ne mooy Siteu Paul moom kooka moo wane boppam bu baax a baax ñaari combat yi mu def moom am na ca ñaari ndam ñu leer nañ moom Siteu Paul waaye armée lourd itam moom daa wàcc bu baax a baax te moom kat fañ ko doon xaar ci làmb ji sori na waaye ñaari combat yi mu def yëpp ay defet la ca mujj jële ki nga xam ne moom mooy Baba Gueye nag nekk seen directeur technique moom jàpp na ne daal li am solo résultat yi ñëw na ci waaye nag li ko gën a intéressé mooy combat ya nga xam ne bëri nañ ko te mu bëri lool toll moo di Baba Gueye wax bu ñu tekki mooy mbirum tafati nag booy ñang mel ni ki nag combat ba doon dox doxi ndew ri ngir bëgg koo yàq day daa mel ni Pape Thialis Faye moom itam jaar na leen sàq daal dëggal la mu defoon maanaam daal léegi moom mbir ya leer na nañ mbëre ca nekk encaissé nga la war a maanaam daal ab contrat mu bete na ko teg ko ci aw yoon mel ni kon fi nekk nii daal bëy wéy na mbuus Pape Thialis ak Leewtoo daal daa mel ni téerañ tafaatin ak Boy Niang ci lu leer nañ ba tax na nag ci Leewtoo point ñu ngi xamal ne day wala Thialis Sène Faye xam leen daal li am ba des moom premier face à face ca yem ak maxu suba teel nee na daal mbir ya noonu la nar a demee mu nga ca Leewtoo point ba tey bu ñu continuer dañuy ñëw fa nga xam ne moo di record record moom tey daa xëy ñëw numéro 2 ku ci dàq bëre ñoom ñaar lii la xëy di laaj ki nga xam ne nag moom mooy père Babou moom jàpp na ne kii di duubale sa Balla Gaye fa ñu ute daal ci wàllum ay cër moom jàpp na ne bokkuñu ko maanaam lees moo sutoon Balla te lees lu mosaan a jàpp moo ko moom Ibou Ndiaye ñoo ko moom micro la mu gis mooy Balla bokkul ak lees ci bëre Balla dàq bëre fuuf fuuf fuuf loolu la gis ngañ jaañ itam la mu gis daal jàpp na ne ki nga xam ne moo di Balla la fuuf palmarès manga doy tamit ancien roi des arènes ba loolu la gis jàpp na ne ki nga xam ne moo di Balla Gaye moom ci côté bëre bokku ci sax ak ki nga xam ne moo di Double Less loolu la ñu xëy tey wax nu ko mel ni kéegri kaay baax itam record xëy na ñëw ci ñoom ak la nga xam ne moom la ñu def ren ci li nga xam ne nii moo di ab liggéey mel ni kéegri boobu moom ak tam yaag na muy doxee daal lu tege ci aw yoon la écrit la boo xam ne daal ah ñu ngi wane seen bopp bu baax a baax ñoom kaay baax record xëy wax nu ko andi ñu caaka fay mu nekk ca xët wa keneen koo xam ne nii moom la ren ci lambi simple ji ay mbiram dafa desee dox muy ngel jon benn drapeau ba mu gañe ak ñaari final ak un million yu tegal daal ngel daal ne na ren moom saison bii moom ah dootu ko gaaw fàtte wala boog bu muy fàtte ci lu gaaw la ndax la ko ca daloon dafa bëri bëriwut lu bëri te itam jëlee na ci ay blessures yoo xam ne ni yu doye doy waar la loolu bokk na ci li nga xam ne moo ko gënoon a téye mel ni kon yàgg maar tey loolu moo fi dikkoon waaye yàgg faw ma ñambaasal la ci lenn jàppal lii ma lay wax saajo maane nag jàppal ki nga xam ne nii daal moo di Ronald Koeman moo ko soxla ca Barcelone ndax nag li am ba des ne nañ Messi day dem te saajo mii nag li jar a wax mooy Koeman na ko yóbbuwoon ca Angleterre ca Southampton na ci gaa yi bàyyi xel. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen nuyu di leen gërëm di leen ziar Babacar ñu leen si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen bi Babacar maa ngi lay nuyu. waa Ndeye Coumba Fall di la ziar di la baalu ak yow tamit di la baal di ñaan yàlla li ñu jégal di balo ak internet yépp xam nga si weeru jullit bi nga xam ne dugg nañ ci muy at bu bees sax laay wax di weeru tamxarat xam nga tey ñu war a ñëw ci juróom ñu ñeenteel jëm jëm ci fukkeelu fan bi képp ku nga xam ne daal mas nañoo wax wala ñu def loo xam ne loolu naqari la moom te yëguñu ko ñu ngi la koy jéggulu yaa ngi dégg di balu ñëpp wax di ñaanal ñëpp jàmm xam nga di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm def ko si àddina bi te dàqal ñu coronavirus bi mu dem bañ bañ ko ko dégg quoi ak bépp feebar. amiin Babacar nu commencé nag ak sunu lam sunu lam nag dafa xëy nag teg nag ñeenti kanam maanaam muy Tyson muy Yékini euh, Moustapha Gueye ak ki nga xam ne moom mooy Boy Kéré journal nag li mu jàpp daal def ay ak si ay gëstoom daal nee nañu euh, ki nga xam ne mooy Tyson. si euh, bureau bi di xam ni moom mooy waajanoo te euh, Matar Ba fas yéene ko tekk Matar moo nar a nekk premier vice président chargé de la lutte avec frappe maanaam remplacé ki nga xam ne moom mooy Thierno Ka Yékini deuxième vice président chargé de la lutte sans frappe euh, waaw mooy lutte simple mooy sans bi. Mhm. ki nga xam ne mooy Tapha ak Boy Kéré ñoom jox na leen li nga xam ne moom mooy lutte olympique loolu daal la mu sunu lamb bi ñëw te indi lu gëstu bu yaatu boobu. waa loolu day kon defe naa ne comme li ñu wax mën a wax rek. ah ñi ñoom ñi ñu fi lim yëpp muy Tyson Yékini ba ci Tapha Guèye ak Kayre dafa naan ku si ni si ñoom ñaar tey icône nga si làmbu Sénégal am na loo fi def loo fi wane yaakaar naa itam bu fekkente noonu ko yëglikaay bi waxee noonu la demee maanaam tey équipe bi ñuy defaraat ni ñoom ku ci ne dañ la dénk lii yaakaar naa ñoom ñi ku ci nekk li ñu la jox am naa yàqin ne war nga ko mën a gérer parce que tamit li ma la wax la rek ku ci ne mm, làmb moom amul lu ñu la si war a mën a jàngal wala boobu du bëri li ñuy wax nag daal mooy équipe bii ñëw moom xaw ma ñoom ñi ku ci ne lii ñu wax moom ngay yore wala keneen ku yore leen daal waaye li ñu xam daal kii ñëw daal yàlla na mën a def lu raw li fi Alioune Sarr defoon loolu lañ koy ñaanal équipe bii ñëwaat parce que tamit lu mënti xew rek nul n'est parfait ndey ko ma fal yaa yaa amul ku ñu mënula a ci àddina bi li am solo nag mooy boo defee sa warugar ba mu jeex nga dem ñeneen ñëw day ñaan yàlla ñu ñëw moom def lépp yow la nga defoon te am nañ ci yaakaar waaw ki nga xam ne nag mooy Alioune Sarr comme que nee ñu dafay dem euh, le 31 octobre moom nag mi ngi accélérer la cadence ndax rapport yi nga xam ni 2019 euh, 2020 jébbal na ko ki nga xam ne mooy ñaatigeem muy Matar Ba. waaw loolu day defe naa ne mooy li war a am comme dama ci des ba mu faw ñu joxe rapport saison 2019 jàpp 2020 bi xam nga loolu defe naa ne mooy li war a am su ko defee nag ah ministre bi xool ko càmbar ko mook ay ñamuy liggéeyal pour que la nekk ñu mën ko xam. ki nga xam ne nag euh, journal sunu laam jox na kàddu ki nga xam ne mooy du Diagne Diecko mm-hmm. nekk président des amateurs de lutte moom daal lu ma gis daal moom nee na euh, ki nga xam ne mooy euh, président Alioune Sarr bi nga xam ne mooy waaje dem warul jox rapport ki nga xam ne mooy Matar Ba nee na ki nga xam ne daal acteurs yi ñoom la war a jox maanaam askan wi daal rap euh, moom mooy acteurs yi maanaam amateurs yeeg promoteurs yeeg <laughs> mbër yeeg support ñi nga xam ne nooy ñoom nooy yëngatu daal ñoo wër làmb ji daal kon nga ne askan wi ndax defe naa làmb Sénégal moom ñëpp la intéressé du janjeeku président des amateurs moo gisee noonu waaw loolu nag gis-gisam la te nit ku ne am nga droit joxe sa avis ci mbir boo ca bokkee te moom itam daa bokk si làmb yàgg a taxawu làmb ci côté bu nekk jiite amateurs yi defe naa tey moom gis-gis bi mu amee mooy rendre compte bi warul yem kon ci ministre bi kese a ñi nga xam ne ñoom ñooy composante làmb ji yaakaar naa ne loolu tam ah, xalaatam la tey defe naa loolu tam pour man nekkul lu war a mën ah, man war a bañ a am war na mën a am boog laay mën a wax mais lu mu ci mën doon rek mbir mu mën a doon tamit dafa am aw yoon wu muy jaar ak nuñ ko a defee nuñ ko war a defee bu fekkente ne loolu lu war a am la yaakaar naa ne est-ce que ko def bu fekkente ne du lu war a am tamit ministre buñ ko rendre compte yaakaar naa dina war a mën a rendre compte moom waa làmb ji la la yaakaar mhm. Mhm. keneen nag ki nga xam ne nag moom mooy rendre compte waa askan bi ak supporter yi ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux waaw loolu de mooy gis-gisam moom nee na daal Gris du def dara lu mu dul boole Tafa Gueye ah loolu nag comme moom moo jiite supporter yi xam naa la mu wax am na fu mu ko teg li ci am solo nag mooy ñun nañu yónni yàgg rek ba xam ndax loolu la mu wax noonu la demee wala que nekk nii wax ji bëri na trop. suñu jógee nag foofu nañu dem nag si bilan yi bilan bi nag tey nag ñu nga xam ne mooy écurie Kër Massar mbooloo nee nañu nag moom daal mi ngi lab daal si géeju Kër Massar bi nee nañ parce que am na 15 victoire ak li nga xam ne mooy 15 défaite mu mel ki mu mel 12 <laughs> ni kon ñoom ah boo bëggee dégg-dégg ñu ngay lab ca kii ba waaye nag eh, dama naan labuñu parce que li tax ma ne labuñu mooy 12 victoire am na solo. xëy na defe ne nag mopp muy 15 li ci des tamit Kër Masar Mboro nekkul équipe bu yàgg te boo xoolee combat yi nombre de combat yi bëri na macha allah muy 27 combat kon daf lay wan ne tamit daa mel ni am na ay écrits yu leen mag ëpp leen doole ëpp leen organisation taxul ñu ëpp leen ay combat kon defe naa itam liggéey am na fa dafa fekk ne que nag ah na bu saison bi continué woon mën naa am bi du demee nii waaye loo ci mën a dégg daal defet yi moo ëpp victoire yi waaye man maa ngi leen di félicité ci maanaam am nañ ko te mu bëri lool mm-hmm. waaw Babacar nag suñu moom mooy Leewtoo point net euh, li nga xam ne mooy tafaatin dem borom takk si nit ndax fan yëpp mi ngi woon fi nga xam ne mooy reefaan ndax maamam jigéen boobu xam ni moom moo génn àdduna dem nag jaar na si locaux Leewtoo yi jël avance am euh, bërki dem moo ñaay la booy ñaay jaar fi jël avance lu Pape Thiassi wax di rek nee na combat bi léegi nag leer na si askan bi combat bi taxaw na te mi ngi wax nag ne première face à face bi ni nga ko fas yéene am euh, fee si France si si euh, teewaay ki nga xam ne mooy Pape Diouf génération conscience te ANSEC nag ma maxu bu subateel Babacar. waaw loolu day lu leer naññ la kon li am solo daal mooy combat bu moom ah luñ ci doon xalaat di ko ci yaakaar ak nangam daa mel ni calis moom la mu waxante woon ak mbëri def nañ ko mbëri tamit la ñu waxante woon moom it xaar nañ ko fa mu def ko loolu nag moo am solo nit ku nekk sa kaddu nga am nday kumba fal kaddu mooy li gën a ci doomu aadama dafaatin ak booy ñang defe naa calis bi mu koy dox ci li ma xam man deful ñaari fan mu juboo ak ñoom dimanche ba jot mu présenté leen askan yëpp gis combat bi yaakaar naa itam ñu am lu ñu digaale woon ah bañ cee bañ ca yeggee nag yàlla dimbali na leen ba ku ne la nga waroon nga def ko kon li am solo daal ñuy félicité waat Pape Thialis Faye ak l'autoproduction parce moom ku la parce que li tax mooy benn bi muy ñëw ci làmb ñun xamuñu woon kan mooy Pape Thialis Faye dañoo xëy xëy gis ko mu ñëw ak ay combat yoo xam ne askan wi soxla woon nañ ko soowee sax ay combat yaa ngi dégg yemu ca jëlaat lu nga xam ne moom mooy wàllum presse recruter ay journaliste defar site internet ubbi li nga xam ne mooy magasin ngir lan te lépp jëmal ko ci 100 pour cent làmb mënoon na ko def 100 pour cent football wala mu def ko 100 pour cent boxe wala karaté taekwondo mais 100 pour cent làmb la ko def yow mi moo lay fay di ma fay di fay keneen ak keneen te du ñun kese fi nekk kon defe naa kooku am na mérite yemu ca nag di fayaat ay mbër kon yaakaar naa daal li ñu koy ñaanal mooy projet yooyu mu sumb yàlla na ko yàlla dimbali ba mu yeggale ko muy signature contrat ca pare ñoom ma ko suba teel ñooñu mu ca nar a àndal ak Pape Diouf loolu lépp daal luy dolli réew mi doole la di ci profité di nuyu Pape Diouf bi nga xam ne moom saan dafa borom xool bu rafet la te saa yu ñu dajee rek mu ne ma Babacar yaay sama reporter bu jël téléphone am woo ma di ma ko wax kon kooku tamit defe naa loolu day nekk sotti ceeg def ci rek quoi Pape Diouf di tamit jaalliwaat tafaatin maamam boobu mais Ndeye Coumba daal comme li may wax rek promoteurs yi ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ku ci ne man Babacar maa ngi lay ñaanal la nga sumb yàlla na nga ko yeggale barke nabi Moustapha sallallahu ma jaal <laughs> kon boog suñu jigéen ak Leewtoo nga xam ne moom mooy record record nag moom dafa toog nag def benn kayit euh, ne nag diggante Balla Gaye ak kii di papaam les moo si dàq bëre nag mais ñu ñu laaj yëpp ku si mel ne Bassirou Babou ñoxo Baye ñëpp lu ñu gis ki nga xam ne mooy papaam waxoon naa la ko fi bëri ki dem na ci Mbaye Guèye ak ñoom gi rek Tafa Guèye li ñëpp wax lii tamit defe naa li ñëpp wax mooy dëgg rek ah mm-hmm. waaw ñëpp ne nañ daal Balla moo dàq bëre kon defe naa loolu mooy li am mm-hmm. donte les nag moo sutoon te lu mosaan a jàpp jàpp dégg naa moom jeex na waaye nag ci côté technicité bëri moom nañ Balla Balla nag wax dëgg yàlla ndax daa Balla mën naa bëri moom mm. mooy géej gi moom defe naa ah. Ah, moom yàlla dénk ko ci daal macha allah macha allah mm-hmm. suñ jógee foofu nag nañ ñëw nag tey nag euh, ba nee ñu daal def nañ fi bu ñu fi defee juróomi at 2015 ba 2020 def nañ fi 131 combats ñeen daal c'est une véritable machine à gagner naanaa machine boo xam ne day gagner la neen taux de réussite deux pour cent ren nag nee ñu euh, journal bi ñuy xamal ne 2019 2020 am nañu 18 euh, combats 15 victoires ak ñetti défaites Babacar waaw mooy li ma la wax rek écurie ndaw yi ñu ngi wane seen bopp parce que kaay baax yàggul 5 ans xam nga yàggul te tey boo xoolee seen i combats bëri mhm. i victoire bëri ren ñu def résultat yoo xam ne jafe na nga gis écurie bu ko nar a def ren parce que li ñu am ci victoire bëri trop macha ak saison la woon ne suñ jógee a foofu nag jëm na si Saint ak bilan ki nga xam ne moom mooy Mbaye Dione nee ñu ren nag moom li mu gis daal moom nee na saison bi nga xam dafa war a fàtte bu gaaw a gaaw la ndax bu bon a bon moom la def ndax nee na benn drapeau la si am ñaari final la gagné ak gagné si 1 million 400. waaw saison ren moom neexul neexul. ci moom parce que tamit defe naa ne loolu moom daawul nekk résultat wu ngel mel ni ki nag ah àddina moo demee noonu affaire yi des fois day neex mais nag dañuy am moment yoo xam ne dafay naqare loolu mais su gërëgee nag mm. li li la si wax rek muy nga muñ ko te yàlla tax liggéey la la xañ nag ci côté plan sportif la jéem ko liggéeyaat parce que tere na fi ay blessure ak yu mel nekki noonu kon yooyu xëy na bu ci liggéeyaatee saison prochaine incha allah rek mën na ñëwaat ci beneen façon mhm. Babacar nag yaa ngi dem ak yaay si yoon ak yaay bëgg naa ko nag <laughs> mais yàllaay dogal mais bëgg naa fa tama parce que ama ginaar wala soo yore ginaar boo yoree <laughs> doo ko ñaan inter nañ ma jox ay ñoom Abdoulaye Mbaye <laughs> États-Unis d'Amérique gars yi ay ñoom Mbacke Kébé eh, yaa ngi dóor yaay Sarr ah gars yi xaaral ma la ngaa mos a ay Ndongo Fall Italie xam nga Aliou eh, Evarou si Brésil yaay Sarr Paris ñoom xaadim Balla Gaye xaadim Jëf fii ci Dakar Massamba ji président ñoom ñëpp maa ngi di laaj nañ ma jox ay ginaar. ndey kumba. aja nga ne. waaw kon nag si kàddu yi leen tàggoo nañ jox dig daje leen di incha allah balaa boobu nuyu sama yaay Mère Sow nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astan nuyu chéri Khadija Diall nuyu Assec chéri maa ngi koy nuyu Abdou Gueye Baye Fall jàmm ma gën papa cité aussi maa ngi koy nuyu tey nag moom revue de presse bi may ma ko kenn ku sama seex koo xam ne une semaine dama lay rawante muy Astan ne DG Brahma démb la woon anniversaire mais xam nga rek fàtte moo mun borom maa ngi koy souhaité un joyeux anniversaire naan ko ba sa bay di waawaan ba bu fekkee say euh, njëriñu njaboot sa projet yi nga nekk

mention spéciale lañ koy wax parce que moom chaque waaw ñu ngi koy gis ñu ngi koy gis mais ginaar yi moom faw gars yi jox ñu ko quoi il faut ngeen jox ñu ay ginaar rek ñu tam suñu internet yi deen balu ak encore une comme ni mu ko ubbee woon deen balu ak bu baax a baax lépp lu ñuy def rek bu ci erreur amee jàpp leen dañu bëggoon mu baax ngir ngeen ngeen a mën a bég mais ñun ak yéen ñoo far yàlla na jàmm yàgg barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, ci ginaar yi may wax soxna mu ci leneen lu ma seetoon